man Alaaji Juuf màggaliwuma yow boo demul tuuba ñun ñooy ñi jëm Touba moo yow sa dem Touba lum yokk waa Touba ñun ñoo di dem tuuba xëy santi bu Touba ngir ñëpp am Touba ñoo gëm Sëriñ tuuba ñoo bëgg Sëñ Touba ñoo gëm Sëriñ Touba doyloo Sëriñ Touba ñooy xëy te dem Touba toogal sa dem Touba ganaar gu dem Touba moonu gënal kooba bu xëy di dem Touba